wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare ci at mu bees mi di leen balwaax di leen balaax te di leen wax marhaban bikum ahlan wa sahlan di xam ne ne jataay bii ñu ngi koy tàmbali ci bismillahi rahmaani di ñaan ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin kon ñu ngi tàmbalee jataay bi nag ci li ñu ko war a tàmbalee mooy bisub Seex Abdul Xaadir képp ku koy màggal di ko fàttaliku la ca jiitu mooy jàng alxuraanu karim kon ñu ngi jox al imaam Abu Bakrin Mbeng mu jàngal alxuraanu karim ñu ubbee ko jotaay bi bismillahi al imaam a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi nuyu suñu kilifa yi fi teew yépp di leen ziyaare di leen ndokkeel ci jotaay bu tedd bi di fas yéene yëkkati kàddu yu gàtt rekk ci ndigalul sëriñ bi jëmale ko ci kii nga xam ne moo waral jotaay bii di Cheikh Abdul Qadir radiallahu anhu wa arda ndax fàttaliku Cheikh Abdul Qadir màggal bisam mooy fàttaliku jaamub suñu boroom subhaanahu wa taala jaam boo xam ne bu doon xeeñtu sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegoon ci tànkam doon koo xam ne doon na jëmmal njàngalem Serigne Touba akub yaram kon fàttaliku ko mooy fàttaliku koo xam ne royukaayu woy gëm yàlla yépp la ci gëm yàlla gu dëggu royukaayu képp koo xam ne danga dëddu àdduna royukaayu képp koo xam ne danga wakkiirlu ci sa boroom subhanahu wa taala fàttaliku koo xam ne waliyu la ci waliyu yàlla yi nga xam ne ci jëfam may na ko cër boobu waaye fi mu bàyyi koo may na ko cër boobu mu doon koo xam ne ay jëfam ay waxam doxaliinam jëflenteem lépp dafa doon jëmmal njàngaleem Sëriñ Tuubaa radiyallaahu kon bu ñuy ubbi jotaay bii ci lenn ci am njàngaleem lenn ci ak dundam loo xam ne dana mën a nekk yóbbal dañuy jël benn tomb rekk mooy nafaul xalqi mooy jariñ mbindéef yi jariñ mbindéef yi benn la ci jikko yi sëriñ Abdou yu bari lool yum jikkoo woon mu doon jikko xam ne ñépp xamoon nañ ko ci moom te mu doon jikko jum den donne woon ca waajuram wa radiyallahu anhu cheikhul ndax moom day ñépp ñoo xam ne jamonoonte nañu moom te amul maandu nangu woon nañ ne njariñul mbindeef yépp la woon moom la seex siidiya wayte wayamu siiw wa ne wa maa aybuhu illaa ibaadatu rabbihi wa naf'ul wara fi subuhihi wa masaa'ihi moom Sëriñ Tuubaa day fekkoon ne am na ayib ayibam jenn la mooy jaamu yàlla ak jariñ mbindéef yi ci subaak ci ngoon loolee it sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu moom moo ko ñaanoon boroomam ne ko lii aw sililladi uridu wan fai biyal yara wara yaa mooniyan anmil fai moo ñaanoon boroomam ne ko lépp loo xam ne bëgg naa ko yàlla na ko indi wammatal ma ko te yàlla nanga jariñ mbindéef yi ci man kon koo xam ne mi ngi jóg di ñaan yàlla jariñ mbindéef yépp ci moom kon kooka loola lu ko yitteel la woon te suñu borom nanguloon ko ko moo taxoon mu waxoon allahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal baxri daa nafin bila darari kon suñ tuwaa yàlla nanguloon na ko ñaanam googu ba mu nekkoon njariñul mbindéef yépp loolee it sëriñ tubaa radiallahu anhu da koo donne woon ci muhammad sallallahu alayhi wa ndax yonent bi moo waxoon ne mbindéef yi ñooy njabootuk suñu boroom kon ki gë yàlla gën a bëgg mooy ki gën a jariñ mi yi alxalqu iyaalullahi wa ahabu alxalqi ilallahi anfaauhum li iyaalihi kon jaami yàlla yi ñooy njabootug yàlla kon ki gën a ki yàlla gën a sopp mooy ki nga xam ni moo ëppal njariñ mi yi moo tax nitug yàlla fañ koy natte mooy njariñ lum amal mbindeef yi ndax ki yàlla gën a bëgg mooy ki amal njariñ mbindeef yi te yàlla moo wax ne xejjam bi nga xam ne da koo jaamu ba jege ko jaamu ko man aadaali waliyan faqad aadantuhu bil harb wama wama taqarraba ilaya abdun bi afdala mimma aftaradtu alayh wa ma zaala abdi yataqarrabu ilaya binnawaafili xatta uhibbahu kon yàlla bu ko jaam bi jegee da koy bëgg kon li ñuy màndargaal bëggub yàlla jaam bi mooy jaam ba di jariñ mbindéef yi kon képp koo xam ne amaloo njariñ mbindeef yi luñ la mën a waxal ci ak wilaaya loola moom du lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëggal kon li ñuy natte ak mbaax ak wilaaya mooy nga amal njariñ mbindeef yi koo xam ne nag sa njabootuk bopp rek amaloo leen njariñ kon sag wilaaya duñ ko mën a nangu Cheikh Abdul Xaadir radiallahu anhu mu doon koo xam ne xëyam ak ngontam lépp ci njariñ mbindeef yi la ko jëmale woon jariñ leen ci seen diine jariñ leen ci seen àdduna ci ay ñaanam ci di leen xool ba tub yërmande ci di leen gindi di leen digal lu baax di leen laabire waaye di leen dimbale mu doonoon koo xam ne dafa yittewoo woon lool diine yi nit ñi di leen wommat ci siraatul mustaqim di leen digal ñu sax ci sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye boole ci di fokk du nelaw ci seen yitte ak seeni aajo moo xam aajooy jàng la moo xam aajooy faju la moo xam aajooy dëkk la moo xam aajooy denc la moo xam aajooy liggéey la moo xam aajooy kuuy ji boroomam ñu war koo taxawu mu mel ne Serigne Abdul Xaadir cër bi ko yàlla joxoon lépp da ko walbati tàggat ko jëmale ko jariñ mbindeef yi kon nag jikko la joo xam ne war nañ koo fàttaliku ci moom jamono joo xam ne mbindeef yépp aaje woo ku leen dimbale kon képp koo xam ne yàlla jox na la cër moo xam cërub diine la moo xam cëru àdduna la cër boobee nga wëlbatiku jëmale ko ci jariñ mbindeef yi ndax mbindeef yi aajo woon nañ ku dim ku leen dimbale ndax seeni aajo bari na ci wàllu wàllu yëpp kon képp ko amul cër sa yitte mooy jariñ mbindeef yi roy ko ci Cheikh Abdul Xaadir radiallahu anhu wa nafaana bihi kon ñi ngi sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee ne képp koo xam ne Sëriñ tuuba lam jàngale fa nga teg sa tànk ya loola rek mooy sa dund tey ak ëllëg kon ñuy sant yàlla suñu kilifa yi nga xam ne yàlla boole nañoo ñun ca ñuy dund njàngaleem Serigne Touba seen dund gépp dañ ko tàggat jox ko bindeef yi ngir jariñ leen kon loola mooy yoon wi loola mooy royukaayu bind la benn bu ndaw lool ci mbind yuñ mën a jële ci dundu Cheikh Abdul Xaadir radiyallahu anhu kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla yokk ay leeram fa mu nekk ñi ngi ñaan yàlla njaboot gi mu fi bàyyi suñu borom teg ci loxo ba àggale seen yéene ñuy ñaanal ki nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Sidou Muxtaar radiyallahu xafizahu llahu wa ayadahu yàlla yokk ak wéram yokk aw fanam ba li mu yéene mu àggale ko ñuy ñaanal sëriñ Cheikh jëwriñu Cheikh Abdul Xaadir yàlla yàggal ko fi lool ak mboolem jabaru Cheikh Abdul Xaadir ñuy ñaanal bokk yépp yàlla defal leen fajug aajo tayug ëllëg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabcuusi rahmatan lil alamin al ixwatu al aisa ashaab alfadila min almashaaiqi wal ulamai wal ixwati alkiram ashaab ashaab almaali assaadatu almusara al ixwatu alxudur إن الكلمات لتبادر إلى ذهني محاولا التعبير عما يجيش fi sadri wa tuxaddisuni bihi nafsi min shukrin jazil wa irfanin fadil ala musharakatikum alfaacila wa xuduurikum allafif fi hada alixtifal addiini alladi yuqaamu sanawiyan li dikra milaadiyati haasa alimaam alawra asiix abdulqaadir Mbakke alladi daxa bi kulli cheyin fi sabili xaqidatihi wa diinihi walam yaxaf fillaahi lawmata laa'im fa jasaahu llaahu anna wa anil islaami xayran fa bi haasihi almunaasaba alsaciida allati atanaawalu fiha alkalima litarxiib wa tahni'a wa tabliixi tashkuraati sëriñ Seex yushiduni an atawajjaha ilaykum bi taxiyati lislaam wa aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa baad fa inna almujtamaat alislaamiya taxtaaju ila xanaasira asaasiya taquumu alayha xayaatuha wa yastaqimu biha amruha kaijtimaahi almuslimiina mathalan fi almunaasabaat addiiniya fi nadawaat wa tawxiidi kalimatihim wa sufuufihim wa tabaaduli aaraai wa wujahaati nadar wa wax wax wax wa ma ila dalik fa ida gaaba unsirun min tilka alxanaasir fa sa tanqatixu rawaabit addiiniya wa ijtimaaciya wa tatalaasha alsilaatu alinsaaniya wa damawiya allati tarbitu baynana fa tusbixu alafraadu fi lmujtamac wixdaatin mustaqilla baaduha an baad laa yashcuru ahadun bi ay silatin tuqarribuhu min al axar fa lidalika nubaadiku juhudakum aljabbaara fi haza alqabil wa natamanna lakum kulla alxayri walsahaada wa nadahu llaha tabaraka wa taala an yujaasiyakum bi axsani aljasa wala yafuutuni huna an natawajjaa bismi sëriñ seex ويسر الأسرة جمعا بالشكر الجزيل والثناء الوفير إلى صاحب الفضيلة سماعة الخليفة العام للطائفة المريدية السيد سيد سيد مختار مكي أيده الله ونصره وأتم مراده على دعمه المادي والمعنوي لهذا الاحتفال كما أتوجه بالشكر إلى الوفود الرسمية kal wafdi rafii al mustawa alladi taraasahu alin saar wa bi adadin min al wusarai wa saxsiyat al idaariya wa siyaasiya wa gayri rasmiya kassaadati mumassili turuqi suufiya wa mumathili kulli atyaafi almujtama wa nashkuru kulla man ashama fi al ixtifaali araf naa wa man lam naarif wa aqudu bi wa axussu bi dikri huna lijaana tanzim wa diyaafa wa saxaafa wa kullu haamin wa antum bi xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen mbokki jullit yi yéen ñi nga xam ne yéene kilifa yi diine yi fi teew di boroom xam yi bokk yi yéen ñi nga xam ne yéene eh, kilifa yi yi fi teew ci ñaari wàll yépp ñi ngi leen di nuyu bi nga xamee ne maa ngi bëgg a wax dafa mel ne baat yi mi ngi njëkkante ci sama xel ma bëgg a jiima expliquer lii fuur ci sama dënn ci ay ci ay cant ak i kat ak li sama xel di waxtaanal ci cant bu dijj ak nga nga njekk lu wér luñ xam ci ñëw gi ngeen ñëw bokk ak ñun bis bu mag bii te defee ko nam ware ak toog teew gi ngeen teew massivement ci bi ci feetu diine gi nga xam ne ñi ngi koy defal Cheikh Abdoul Khadir Mbacké mi nga xam ne dundam bépp sacrifié na ko ci diine bi ci yaar la ko sacrifié ci pastéefam ak diine bi daana daana wax ne mag du fooyee diine bi baat la boo xam daana daana ko faral di mag du fooyee diine kon nag loolu loolu la dund moom la moom la jëf musta faale it ci wàllug yàlla yaddu ko koy yadd maanaam lim jàpp ne dëgg la du ci rus kenn lool loolu ab daraja la ci yàlla ndax lu jafe la ndax ma mën na laa jàpp ci dara wallaahu la yastahi min al xaq kon nag yàlla ko yàlla fay ci occasion bi may waxtaan ak yéen nga ne maa ngi jël kàddu gi fii nag ngir bëgg a dalal dalal leen ak félicité leen ak jotti leen cantu gi nga xam ne ci sëñ Cheikh la jóge jaar ci famille bépp jëm ci yéen ñi fi teew yépp muy bokk yi ak délégation yi rafet na ci man ma wax leen nuyoobu lislaam mooy ma wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xamal leen ne ginnaaw bu ma waxee loolu société islamique dafa soxla ay éléments yoo xam ne ci lay fonde mbiram ci la mbiram di taxawee ci lay jube loola mooy lu mel ne lan lu mel ne jullit ñi di dajaloo ci ci cérémonie officielle yi nga xam ne mooy yu diine yi ak di daje di waxtaan di gise di sottantee xalaat di bennale seeni kàddu ñoom jullit ñi di e, rankal rankalewaat seen sàppe di weccee xalaat di weccante ay gisiin loolu ak ak yu demee ne yoom lislaam dafa yooyu mooy li nga xam ne mooy éléments yi nga xam ne mooy composé wu islam taxaw ca loola maanaam mooy mooy dundal lislaam lislaam éléments yooyu ngay dajale moom mu taxaw nag dundal lislaam waaye éléments yooyu bu ci benn manqué rek li yeewoon nit ñi ci li leen lëkkale woon ci seen diine ak li leen lëkkate affaire sociale bi leen ci lëkkale woon day dagg boo ko defee liñ doon jokkoo ci wàllum niteek niteek doom moroom ja day naax saay li nga xam ne mooy deret ji nga xam ne moom moo leen boole woon ci bokk day mujj te woon leen day mujj xët dak bu ko defee nag day mujj nit ñi ba lii ñu nekk ay société bi dañuy doon ñu beru ku ne ber beru noonu ko sëñ Moussa Gueye waxee ku ne ku ne ku ne ku ne ku ne manum lëm kon société bi mel noonu lay doon bu ko defee nag kenn du yëgati ne ndeke sama mbokkum jullit mi jege na ma ak moom wala am na ma ak moom benn relation bu boobaa loolay loolay am eh, yàlla na ci yàlla musal te loolu nag lu mel ni lii rek ak i moroomam yi jëflante mooy lii dindi loolu kon nag alhamdulilah moo tax ñu lu seenu jataay ci bi nga xamee ne si loolu lislaam bëgg moom la jëf yi di ko jëf ci kem yi kem yi lii ngi leen di sant di rafetlu seen rafetlu seen taxawaay bu rëy bi ngeen def ci googu wàll di leen mébétal yéen ñëpp aw yiw ak lu baax di ñaan yàlla mu fay leen yéen ñëpp di duñ duñ buñ noppee ci loolu nag mu ci teg lu dul sant xalifa général des sant ko dijj kañ ko bu baax ci li nga xam ne moom lay jàppe ci bis bi ak lu dul bis bi ci mboolem rek ittey kër gi ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax ci ad daamul mardi wal yi li ko ñaanal yàlla dëgëral ko jàppale ko bi loolu wéyee nag ñi ngi sant délégation yi fi ñëw yëpp yu officiel yi ni ki bi nga xam ne moom la gouvernement bi yebal te Alioune Sarr jiite ko ñu ànd ak ay ministères yeneen yu bari ak bi nga xam ne du officiel mooy ñu demee ne mooy ñi nga xam ne ci wàllu opposition bi lañ ne te teew fi nit ñi jóge ci eh, Euh, ñi fi Ablaye Wade yebal te Omar Sarr mais jiite leen ak Madické Niang euh, ñoom it ñi ngi leen di nuyu ak ñi àndal ñëpp ak yeneen ñi fi teew lépp ci ci wàllu kilifay diine ko képp ko euh, képp xam ne teew nga fi ci kilifa diine ñi ngi lay sant muy mbooleem ñi nga xam ne ñoom la fi tariixa yi yebal ni ki Sidi Ahmed mii ak ñeneen ñi fi teew ñëpp te yi te Ablaye bay tuddoon leen ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant di leen jot loo ci suñu Maodo suñu nuyoo ak suñu cant di sant nag mbooleem daal ñi fi teew te teewal fii rek dara lu bokk ci société bi waaw moo xam ci société civile lañ bokk moo xam ci kër yi ci kër yi diine yi fu ñu fi mën a bokk moo xam dañuy ay jullit rek waaye teew nañ fi ñëw ñëpp ñu ngi leen di sant mbooleem mu ma filu kulli atyaabil atyama eh, mujtama bi daal ñu ngi leen di sant di sant it ñi nga xam ne ñoo participé ci màggal gi ba mu tàmbalee ba tey ñiñ ci xam ak ñiñ ci xamut waaye yeeg ñoom participé nañ ci ñu ngi leen di gërëm di leen sant di sant nag ñi ko doon organisé ñi taxawoon ci organisé bi ndax ndax dëgg yàlla seenu dëgg yi rafet na ba liggéey bi mel résultat bi ñun ñëpp natiije mal muusa lañ am wax ne ñun ñëpp a ko daj kon ñi ci ànd ñëpp ñi ngi leen di gërëm di leen sant di rafet seenu taxawaay di ñaan yàlla fay leen ci daraje Sëriñ Tuubaa di ak mboolem ñi nga xam ne ñoo yoroon ngane nganale gi ñu ngi leen di sant ak mboolem ñu yoroon presse bi nga xam ne fan yii yëpp liggéey bi war ci jot li bi ñaari semaine a ngi nii wala lu ko wala ñetti semaines yoo xam ne la ca war lépp ñoom waa presse bi ñu ngi koy def yaa ñoom it ñu ngi leen di sant tey ñaan ku ci ne ci la ngay liggéeyee yàlla na la ci yàlla defal ndolleen ci daraje yi sëñ Abdou Khadir Mbacké daraje yi sëñ mi nga xam ne moo ñu fi dajale ñun ñëpp ñi ngi sant ñëpp nag di ñaan nag mboolem rek ku ci taatanoon sag bagaan rek ci daraje sëñ Touba yàlla na ko si yàlla la sëñ Touba duyal a bu ko defee nag bu loolu jàllee ñu jot leen ay kàddu yoo xam ne ci sëñ Seex mii la bàyyi ko fas yéene yëgal yëgal ne am na lum bëgg a fas yéene taxawal ñu di ko wax ab fondation mu bëgg nag dafa nekk ci toppatoo gi te matul waaye mu bëgg nag ñi ko war a yëg ñëpp ñu yëg xam ne mi ngi koy toppatoo te te rafet na njort ne balaa yàgg lépp dana mën a sotti bu sottee ku ci ne la cay sëb cir danañ la ko ci jox waaye nag ginnaaw lu muy def la rek te yenu yanu yanu ko tigaal dañoo war a yëgoo waaw ñu mu tax ñu bëgg leen koo teel a yëgal waaye bu sottee ku ne la cay sëb ci cër ci fondation bi danañ la ko xamal te te fàttewuñ ci kenn ku ci war a bokk mu ngi leen koy yëgal dafa séene bu noppee it ku ci ne lay sa sa warugar nga liggéey ci bu baax te jàpp la ca topp mooy fédération bi nga xam ne moom lañ sos ci biir réew mi ak ci bitim réew mu ngi ci soññ mboolem ñi aju ci kër gi képp koo xam ne bokk nga ci kër gi foo mën a nekk te fédération boobu sant nañ la nga bokk ci ngir liggéey yi ñuy def ci kër gi mën a gën a jàppale bu ci bu ci kenn rusaanu ndax sëñ bu Xuddoos daana wax ne at taxallu yooyu bu taxallu fa rusaanu day waral gis nga naaw kon nag yàlla na yàlla dimbali ba ba ba kenn bañ a boo ko defee nag la ca topp nag mooy ma tëjëk wax ji mooy ñu xam ne war nañoo dalum xel ndax sëñ Tuubaa mii ñu àndal moom nga xam ne moo fi dajale ñun ñi ngi ñi ngi koy sant te war a rafet war a rafet ngir moom ndax moom dafa diggoon alxuraan lool lool lool lool lool dégg goo xam ne ko yàlla defal la ndax arrahmaanu allama alquran yàlla mooy xam ne alquran moo ko xam ne dégg na ko bi wér goo xam ne ñëpp xam na ne xarbaax ci kay karaamaam la bokk dadaa wax naan qul in kuntum tuhibbuuna allaaha fattabi'uuni yuhbibkumullah ngeen nee yàlla yàlla fu mu attafewut fu mu attafewut waaw ci alquran nee boo koy def rek def def ci ak sotti ci lay doon defal rek ma daal def automatiquement ma defal la li nga yoon daal ne boo bëggee moo tax mu ne yonent bi bu ngeen fa leen kuntum tuhibbuna bu ngeen fekkee da ngeen a bëgg yàlla ne na ngeen ma topp man yonent bi fasaasa rek yuhbibkumullah am waaw boo toppee yonent bi rek fasaasa yàlla la daal lay bëgg kon noonu la ko sëñ Tuubaa fii nee na boo gisee mu am waaw nag dana am waaye dana yàgg wattaqullaha wa yuhallimu wattaqullaa ragal leen yàlla ba mu yàgg ba yàlla nattu leen ba xam ne ragal yàlla gi dëgg la wa yuallimukumullaa yàlla xamal leen nag ngeen xam-xam xam-xam boo xam ne gone day xam ne lii ci yàlla la gis nga nam ngeen di firee ñaari laay bu ko defee nag dafa am bisit muy firi ci xasidam bi yi mu bind boo xam ne sëñ Malick Basine ku man a dégg waxe sëñ bi la moom it sëñ bi déggaloon ko lu bari ci alxuraan dégg naa ko sëñ Abdou Khadir mu wax mu ne sëñ Malick ba maanaam ak mu yéem sëñ Malick Basinaat ci ni ko sëñ bi déggalee alxuraan laa déggee woon ci moom sëñ ah, lii may bëgg a wax nag sëñ Malick Basine daa fekkee ne ci jataayub sëriñ bi bi ne lakkaru joo hii mahajumoo hii bi xayri joo wala xataay mu ngeen koy firee yéen ndaw ah mbàkke de loolu boo ci joxee ni lakka ñeel na la rujoo hii sama dellu si mahajumoo hii ànd ak samay mbooloo bi xayri joxe ci lu tub xiif wala xataa jóge nag juum la lañ yaakaar moom lañ fi mu ne waaw loolu de am prix la ci waaye dëgg dëgg prix ma mooy lakka fi yow rek la ne yow yow yonent bi rujoo yi sama jofal maxa jumoo yi ànd ak samay gàtt bi xayri joxe te benn du ci làpp wala xataa yi du jóge ne mooy por parlu ba ndax mayuma porlu kon nag war nañoo sant bu ñu àndeek ku ñu sàmm ab sàmm boo xam ne ñu joxalal te duñ làpp ndax muyuñ parlu ba nañ yàlla nu yàlla dimbale bañ bañ a génn saawoo gi rek sax ci ndigalam yi te bàyyi ay tereem moo ñu moo ñuy dimbale kon nag ñu ngi fasaari ñëpp ñi ne ci biir réew mi ak ñi ñi ne ci bitti réew mi kullu xamin wantu bi xëy di siyaare suñ mag yu baax yii si Abdou Fatah nga xam ne at mu jot mooy toog ak ñun ah, xam ni kër yi demee at mu jot cër mu ñëw wettali xam ne mooy suñ mag ñu ngi koy gërëm di ko sant ak mboolem nag bokk yi fi teew yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen bokk julli fi daje yëpp ñun bokk taalib yëpp maa ngi leen nuyu ci jiital ci nuyoo bi Serigne Touba Cheikh Seydul Muxtaar di ko ñaan mu yàgg fi te wér lool ak njaboot Serigne Touba gépp ak ñun taalibe yëpp maa ngi nuyu Serigne Cheikh moom Cheikh Abdoul Khadir di ko ñaan mu yàgg fi wér di lool ak njabootu Cheikh Abdoul Khadir yëpp di nuyu sama rak sama xarit sëñ Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir ak sëñ Sidi moom Cheikh Abdoul Khadir njabootu sëñ Abdoul Khadir yëpp nuyu nag sama xarit bopp Cheikh Bachirou moom Cheikh Abdoul Khadir di nuyu nag kilifa yi diine fi daje yëpp ci bi ci sama rak sëñ Ahmed si bëgg mu jootal ma nuyoo bépp ci euh, kilifa yi diine fi ndax yaakaar naa ni koo xam ne bokk ci yu tudd sëñ Touba nga jël sab nuyoo teg ko ci ci alhaaji Malick si war na ko jotteel Seydi alhaaji Malick si war na koo jottali eh, li jullit yëpp kon nag Seydi Ahmed sama rak sama xarit maa ngi jox nuyoo bi bëgg nga jottali moo ko ci bokk yi fi daje yëpp maa ngi nuyu itam ñi xam ñool président eh, Macky Sall yabal te ministre Alioune jiitu ko ak ñi mu àndal ñëpp wax ja na du gudd gannaaw bu ma nuyu bokk yëpp maa ngi nuyu ñi xam ni maa maa seeni mag ak sama doomi bopp yi fi daje yëpp su ma limee dama jom waaye ñu yëpp xam xam nañu xam naa leen ak bokk yi fi daje yëpp di wax nag ci loo xam ne lu lu gàtt la ndax euh, Cheikhana Abdul Xaadir dañoo wax ni bi mu ganee àdduna sëriñ bi dafa maam ci Ibrahima Fati ne ko gan googu day dama am gan goo xam ne gi genn la ci man waaye nag na nga koo yëgle te boo boo ko yëgle nag koo dajeel na nga xam ne xetul xoj na nga na nga na ngay ngay na ngay na nga na nga dimbal say tànk te ko xam ne koo xam daje koo dajeeg moom xeet la ko ruteeg ëllëg Cheikh Moudou Fadal daana wax ne sëñ Mourtala moom moom Cheikh Amadou Khadim moo nu mujj fa sëñ Touba Khadim Moustapha kon nag Cheikh Bassirou yaa nu yaa nu mujj fi Cheikh Abdoul Khadir noo ngi wax loolee Pape Thior waxoon eh, eh, sëñ Touba waxoon Mame Thior Ibrahima Fati ne ko koo dajeel na nga yaxal sa tànk boo dajal da mbiram daan defatu teeg ëllëg maa ngi dégg ci bi Cheikh Moustapha mi def déclaration bi wax ni nañ ñëpp nañ taal nañ taatu suur yi ndab sëriñ bi xaalis ko duy ba pees kon ay sëriñ Cheikh maa ngi leen di poñe bëgg ngeen wax ak sëriñ bi ñun ñëpp ñu fi nekk ñëpp ñu teew ñu teew ku ne am ngay aajo aajo yi na faju te bu fi kenn jóge jàpp benn aajo ndax sëñ mën na lópp loolu ba kulli aam bantum xayra jasa akum laa jasa yàlla ko teewaat nagari déwén te lépp ànd ak xéewal jërëjëf xarit Moussa jërë ngeen ngi nuyu mbokk jullit yëpp ci wante mën naa wax di ko di leen nuyu ci turu kaddu Serigne Cheikh Bara Matiley ndax mooy kilifa ci délégation bi nga xam ne ñoo ànd ñëw teew fii tey ci suba. dikkoon nañ fi ànd ak Serigne Moustapha am yeneen yu ko dab mu dem ca mu wax Serigne Cheikh Bara mu jiitu ci kanam kon mën nañoo wax tey ci kàddoom la wax waaye mën nañoo wax tamit ne kàddu Serigne Bassirou la wax. di nuyu mbokk jullit yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo boobu Serigne Cheikh mi nga xam ne moo waral jotaay bi ak mboolem njabootu Serigne Abdoul Khadir bàyyi wuñu kenn góor ak jigéen ak dongo yëpp. di nuyu kilifa diine di nuyu Serigne Abdou Fatah mi nga xam ne mooy kilifa jitaay bii tey jii di ko jot li nuyoo sëriñ bi ak ñaanam di nuyu itam bu ma tuddee sëriñ Abdul Fatah ak sëriñ Moustapha daanaka ak sëriñ Basiiru sëriñ Siidi waa kër sëriñ bi mën naa wax ni tudd naa kilifa yi nga xam ne toog nañ fi yëpp kon mooy jël seen nuyoo di ko teg ci loxo sëriñ Abdul Fatah mu tegal ma ko ci loxo sëriñ Seex mu jot li ko kilifa yi fi teew yëpp di nuyu itam sëriñ Siidi Ahmed. comme ni ko sëñ Abdou Fatah sama wayjur waxee buñ jëlee nuyoo kilifa diine yi fi nekk yëpp teg ko ci loxoom teg ko ci loxo Ahmed Niass teg ko ci loxo Iyane Thiam waaye teg ko ci loxo Sidi kon dafay mel ni ñoom ñëpp jot nañ ci kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk di turam ak santam kàddu yi nag eh, mën naa bañ a gudd ñoo ngi nuyu itam Alioune Sarr ak Mansour si ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite délégation bi nga xam ne moom la fay président yabal di ko jot li di leen di leen yóbbante nuyoo Cheikh Sidi Moukhtar ci président ak ñaanam ak cantam di nuyu itam Omar Sarr mi nga xam ne moo jiite ñi fi Abdoulaye Wade yabal di leen yóbbante nuyoo ñoom itam di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn eh, Serigne Cheikh démb ci timis sëriñ bi daf maa woo ba ma ñëw mu xamal ma ne bu subaa ngeen àndandoo dem ca màggal ga daal di may wax ni ma soo demee na ma ko santal ci kanamu mbooloo mi te kaddu yii may wax maa ko wax soo demee na nga ko wax daal di wax kaddu ya kàddu ya mooy dafa wax ni Serigne seex mii day nanga wax ni ab lantinoor la yéen taalibe sëñ Abdou Khadir ak njabootu sëñ Abdou Khadir na ngeen xam ne lu ngeen jox Serigne seex ñëw na ci nanga leen wax ni ñëw na ci man ba mu jël ñàqu boppam teg daal di wax ne na nga leen wax ne itam ku ma gëm la ku ma wóolu la ku ma fonk la moom sëñ Cheikh sëriñ bi nee na sëriñ Cheikh ku gëm sëriñ bi la ku ko wóolu la ku ko yaakaar la ku ko fonk la itam yii sëriñ bee ko lim ci ci ci kàddoom wax ne naa ko jot li wax naa ko ko ci bëccëg bi ma ñëwee itam ci kanamu sëriñ Moustapha kon laaj na itam ma wax ko ci mbooloo mi ba ñëpp dégg ko mu waxi tamit ne nanga ma ko santal ngir ñi nga xam ne dañoo dañoo doon ak njabootam te fu mu leen jëmale ñu jëm fa liggéey bii nga xam ne Serigne Touba da koo jël dénk ma ko ma jël Serigne Moustapha tabax jumaa fan Ndakaaru ni ko demal di jiite mu dem di fa mat ko sëkk ànd ci ak pas ànd ci ak yéene ñëpp teg ci ma jël Serigne Fallou ni ko dikkal di ma jiiteel fii ci Touba fi nga xam ne sa wajur wu tedd ba fi la daan taxaw di jiite mu ñëw fa jiite taxaw fa mat ko sëkk ànd ci ak pas-pas. te loolu lépp coobare yi sëñ Cheikh la mu wax ne ma dellu jël sëriñ Basiiru ne ko yaay samay loxo yaay sama kat yaay samay tànk yaay samay nopp yaay samay bët mu mat ko sëkkitam ñëpp teg ci seen bët ndax ndax ndax li ko sëriñ bi dénk ku yaatu te yaatal la ci te itam li may wax ñi fi toog ñëpp koo xam ni da ngay wax dëgg mën nga koo seet kon sëriñ Cheikh yi fee yii tax na sëriñ bi wax ne mi ngi lay sant defin yii tax na sëriñ bi wax ne mu ngi lay sant bu wér kàddu yi nag kàddu yu rek la daanaka mënunoo wax lu jégg li sëñ bi wax ndax ngeen bokk ngeen bokk sëriñ sëriñ Abdou Khadir ak sëriñ Baara Mbàkke bokk sëriñ Touba yéen ñaar yàlla dogal seeni waajur jiitu ngeen des fi yàlla dogal mu doon sëriñ Touba nga bëgg ko gëm ko euh, euh, faale ko safoo ko di ko déglu ci lépp doo yenn fu xamut doo fanaan fum mu xamut lii la sëriñ bu waxoon ne nañ ko nañ ko nañ ko seere ci yow ginnaaw bu loolu wéyee itam ma di ca yokk nit ñi ñu roy ci ku mel ni sëriñ Abdou Khadir ci jéego yi nga xam ne da ko doon dox nit nag doo wax ni nam meloon mënumaa mel noonu ba tax doo ko roy ndax avion hélicoptère mën na laa jëli fi yóbbu Ndakaaru ci ñaar fukki minutes waaye tamit bu hélicoptère jàllee oto bu ndaw mën na la fay jëli yóbbu la fi ci ñetti waxtu waaye bu jàllee oto bu mag mën na la fi jële yóbbu la juróom-ñetti juróomi waxtu wala juróom-ñetti waxtu waaye boo doon dox itam kat foo sonn jugaat lu yàgg-yàgg di yàgg yegg fi nga jëm kon nag mag ñi fi ñu tegoon seen tànk ndax sëriñ Abdou Khadir day nit ku ragal yàlla la woon nit ku dëggu la woon nit ku mën a dimbulee la woon te yii ñooy yi gën jafe ci jamono ji fi mu ragal yàlla ak dëggu ak dimbulee tey wax ngir yàlla tax lu néew a néew la ci jamono ji te nit ñi umpale nañ ni saa boo nekkee ci dërëb jàmbur da ca wax loo ci wër te wax ña ngay jël saw yiw di ko jox bu yiw wa jeexee ñu jël sab safaan di ko jox te kenn ku nekk ni ngay xalaate sa àdduna ji war ngaa xalaate sa ëllëg noonu ndax fa nga xam ne bu ñu fa demee képp ku fa dem loo fa yóbbaalewul loo loo jëfutoon mu jiitu la fa mënoo koo ŋàpp di la fa dugalaale sa kër yii lu mu bari bari genn kër nga ci fanaan kër ga itam benn néeg nga ci mën a fanaan benn néeg ba benn lal nga ci mën a fanaan kenn du yóbbu sa alal kenn du yóbbu ay oto kenn du yóbbu ay kër kenn du yóbbu dara te jamono ji boo ko dee xool tey yàkkamti gi dafa ëpp yàkkamti gi nga xam ne nit ñi yàkkamti na ko ëpp na ndax da ngay gis koo xam ne dafa judd di góor di dox dox ba am juróom-ñaar fukki at nga doon gone gu am fukki at ak juróom mu romb la nga ne lii mu am bu subaa mu am ko catastrophe yi ngeen dégg yépp daanaka loolu mooy la nga xam ne moo ko sabab te itam nun ñi nga xam danoo yaakaar sëñ Touba danoo war a xam ne li ci des mooy wax leente yiw jëf leente yiw rafetalal ko sëriñ tubaa te xam ne mënuñu koo ñaawal baax na ba noppi ndax sëriñ tubaa ilay xaadalaahu maa lam yakku ni wala yakkoonu abadan li mumkin lastu asukku abadan fi kaw ni yaaral ba diajaban li kenn ku nekk xam na ni kon loolu ko sëriñ tubaa bu ko waxee ñëpp xam na yàlla defal na ko li mu soxla lépp kon dañoo war a jàppante dañoo war a booloo te ab jullit kat ak mun munta mat mukk lu dul li mu yéene boppam mu yéene ko moroom jullitam te boo dee xool ci jamono jii li fi xew mooy ñi ëpp nit la ñu dund ndax da ngay dem fi barab di tagg nit di xarab nit bu subaa nga delluwaat feneen di tagg nit di xarab nit te yow kat booy tagg nit booy xarab nit ba ba di ko nettaliwaat la nga doon wax doo ko nettali lu ñaaw lañ wax rek loolu ngay nettali te yooyu yëpp dafa day fee yoo xam ne ñi fi toog xam nañ ko xam na ne noo ngi dund kon nañu nañu delluwaat ci ragal yàlla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 suñ yoon suñ Tuubaa yi liñ ci xam ki jiitu ñëpp dañuy topp ci moom kooka itam ka jiitu nekkal sëñ Tuubaa ñëpp topp ci moom waaye booy xool léegi kenn ku nekk ngiy tëggu ci barab naan manum lëm ña nekk ca ginnaaw di tëggu naan manum lëm te sëñ Tuubaa fi def lépp kenn def fi dara ku seetaan itam du teem mu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah min ashaytaan rajim bisi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal xaq di jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke xalif général de Mouride di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool ci wéral ko ak mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gépp di nuyu kilifa jataay bi ni ñu ko waxee mi sëriñ Abdoul Fatah mu Cheikh Umadou Fadal ak mbooleem rakkam yi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp nekk fi ak kilifa diine yëpp di nuyu sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy jiite njabootu Cheikh Abdou Khadir ki nga xam ne ñoo amal bis bii tey di nuyu mboolem képp koo xam ne ñëw nga fi ci turu commune Touba turu maire Touba di Abdoul Ahad Ka sëriñ bi di nuyu monsieur le ministre Alioune Sarr mi jiite délégation bi ak mboolem ministre yi mu àndal yépp ci ñu gën cee ràññee sunu xarit ku ñu jàppale noonu waa commune bi mu di sëriñ Birima Mangane ak ñi mu àndal ñëpp Dini Mangara di xaritu commune bi di xaritu maire di nuyu délégation monsieur Abdoulaye Wade ci sëñ Omar jiite ko ak mboole ñu mu àndal ñëpp di nuyu itam mbooleem képp koo xam ne rek ñëw nga fii ci bis bi Serigne Cheikh monsieur le maire Abdou Lahad Ka moo nu jox kàddu ngir ñu wax ci li nga xam ne moo nu fi dajale tey ginnaaw bi mu àndeeg li ëpp ci conseil yi ñëw teew fii ñu mën cee ràññee Serigne Cheikh Bara lay di kilifa ñëw fi ci ñaar ñëw fi ci turu papaam ñëw fi ci turu commune bi ngir bokk ci liggéey bi mën cee ràññee Serigne Abdou Jaxate maire Touba euh, chef du village su Touba mu bokk ci délégation bi Serigne Cheikh Seck di doom ci kër gi ak Serigne Mor Seck di doom ci kër gi ak Serigne Moustapha Ka bu Yaañ ak Serigne Jili Mbàkke mi nga xam ne moo nekkal kër gi ca commune ba ak Serigne Jaaja ak mbooleem conseil yi nga xam ne ànd nañoo ñoom ñëpp ma jukki ci ñi rek leen ñu ànd ñëw teew ci bis bi dafa mel ne nag tey kàddu yi du mën a waaye dafa mel ne bi màggal gi di fi jóg ginnaaw bi mu nuyoo suñu gouverneur de la région mu nit koo xam ne jàpp ci màggal yi di jàppale commune bi di jàppale dëkk bi ak préfet ak sous préfet bu ndaam di leen rafetlu seen taxawaay ñu bokk sax ci délégation bi waaye du ñàkk ma lim leen ngir lu gën a jege yay te ñooñu gën a jege kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci turu monsieur le maire Euh, sëriñ bi bi liggéey bi jubee muy màggal gi bi nga wootee waxtaan ak ci gouverneur ak ci préfet ñu waxtaan lu jëm ci màggal gi dafa am loo xam ne nii jëloon nañ ko fa engagement ngir fas yéene koo def ci bis bi loolu nag dafa mel ne li ci ëpp def nañu ko suñ ko deful cent pour cent yi jàpp naa ne def nañ ko quatre vingt pour cent yëpp jàll na waaye dafa mel ne bi ma waxtaanee ak sama sëriñ sama xarit sëriñ Sidi mi nga xam ne moo jiite liggéey bi wax na ne ma eh, def ngeen cent pour cent kon alhamdulilah daanaka mel na ne wax ji mënoon naa yem foofu ndax lañ fa diggee woon mu jëm ci lépp mën a doon ba ci pompe beeg la jënd jox ko service di seet ngir ñu lépp ñu def ko ba mu mat sëkk kon fekkee ne dañ ne woon danañ def nangam ñu ne la ngeen def def ngeen ko ba mat na ba am def ngeen cent pour cent kon alhamdulilah kon daanaka waxtaan wi mënoon naa yem foofu waaye nag ñaare dama daan wax bu màggal gi ñëwee ñu ne El Hadj Fatou Ndiaye bu màggalu si Abdou Khadir ñëwee mu def bilan commune bi man ten defuma bilan. damay wax ne rek mbooloo bu dajee kilifa yi daje di waa Touba di nu liggéeyloo njabootug si Ahmadou Bamba toog taalibe yi toog ñu teg ñu ci kaw ne ñu liggéey leen. dama jàpp ne ñu ñëwee taxaw wax ne def nañu lii ñëpp mën koo dégg sëriñ si ñuy liggéeyloo comme mënuñoo dem kenn ku ci nekk sa bunt kër dafay mel ne loola dana nekk njariñ ngir ñëpp xame ne noo ngi def lii foofu rek laa ko jàppee ndax kenn ku ci nekk da ngaa am ndaw yable ko fa mu nekk ca commune ba di la diglu nga di ko wax mën naa am ma ngay ñëw di la jotal si mën na am jotal si la waaye suñu waxee lii rek kenn ku ne mën a jot ci wax ji loolu lañ ko jàppee mais du bilan buñ fiy def si waaye nag dafa mel ne daaw dama fi am ma fi woon wax ko alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu ko fi teewee yàlla nañ ko fi teewee waat na gën i déwén loola moo di du bilan nag waaye lu ma digee woon la faaw ma wax koog yéen na gën daaw dañoo duggoon ci wàllu santé ma ne leen woon na gën déwén incha allah commune bi taxaw na ngir defar poste de santé bu baax daal ba ñu ko waxee ñenn ñi nee nañ dañuy wax rek ruumandaat yi bëri woon na ñii ne duñ def dara ah jàpp naa ne sëñ Sidi wala sëñ Siada xam nañ fi may waxee yow de kuulee nañ poste ba ba ña ngay yaakaar naa ne bu nu woon ak droit bi nga xam ne moo ñu xawoon a tënk ci yenn yi nëga ni dañ naan dañ koy inauguré ci bisu màggal waaye kon mu mel ne la waxoon ña ca leneen lu mën a doon itam noonu lañ ko fës yéene defee jàppalee ko Serigne Cheikh moo xam ca Baxdaad la moo xam ci Gede la moo xam ci Sura la ngir lépp liggéey bi la ca dañoo fës yéene liggéeyal Serigne Touba ca dañoo bokk ci ñu ñu war a liggéeyal kon na jàpp ne lépp loo xam ne commune bi am na ko li jëm ci quartier yooyu ni ko Serigne bi fonk fonke dañ ko jàpp. wàllu santé nag jàpp naa ne déwén moom leneen la ñuy laf jëm ci yéen ci seen quartier ak leneen lu mën a doon waaye santé bi moom am ngeen ñaari poste ba ñett loolu nag daa fi yaakaar naa ni doy na ci ci ci ab ab gox ndax benn ngi fii benn ngi ci ci isbu tarqiya benn nga ñuy defar fëli kuule nañ ko ba ñu ngi koy raas yàlla na yàlla lépp àgg lépp lu ngeen bëgg te bëgg ko mooy dimbali askan wi jàppale askan wi sëriñ bi nag ñu ngi lay ñaam bi nu waxee loolu ba pare nag sañ na noo ñaan ndax ad'uuni astajib lakum la yàlla wax ñaan mooy moom mu la ñu war a def kon nag ñu ngi ñaan li ñuy ñaan mooy commune bii dañu koo jox ñuy ndaw yi Serigne Touba di liggéey kenn lañ ci fayut weer wu jaar ngay xëy ak gont di def dara waaye liggéey Serigne Touba jar na ko benn kilifa muy Serigne Sidi Abdou Lahad dafa am wax bu mu wax liggéeyal naa Serigne Touba ba sama maas raw ma nee na gisu ko fenn waaye liggéey Serigne Touba ba raw sama maas daal gis naa ko loolu moo waral nuy sonn guddi di sonn bëccëg di dékku xeer yi di dékku lu mën a doon waaye jar na ko ngir Serigne Touba. kon nag sëriñ bi nanga nga ñu ñaanal ba ñu am réussite ci liggéey bii ni ñu ko bëggee ngir liggéey ko ba am ci réussite rekk la ñu bëgg Touba gépp mel na ñu bëgg ni sëñ Alaaji Baara daan wax Touba dañoo mel ne Makka ak Madina loolu lañ fas yéene yàlla nañ ci yàlla dimbale ñu ngi sant ñëpp di gërëm nag du ma jeexal nag te gërëmu ma nag ki nga xam ne day sunu partenaire bokk ci délégation bi mënoon naa ko cee lim mu Cheikh Bachir Abdou Khadir ngir li tax ma di ko wax mooy daf ñuy jàppale commune na ku ci nekk di sonn ka nga xam ne waxtu nekk soo jógee mu jóg soo jaaxlee mu débloqué fa nga jaaxlee di la jàppale soo toogee ci kilifaam war nga koo sant ñu ngi koy sant di ko gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah sama xel dafa dem si koo xam ne wóor na mën a jamono ji xelam xolam róom lépp muy si bis bi muy sëñ Maguette Diouf te suñu borom dogal mu nekk fari France fu mu ni am ay itte yu ko fu yu ko fa téye ñu ñaan suñu borom sàmm ko ba del sookat suñu nii man damay wax si turu fédération bi fédération bi ginnaaw bi suñ màggat jógee dafa am kën fi toxal muy sëriñ mbay seen sëriñ mbay seen keroog ba nu jokkee daje dani man daal li ma fas yéene mooy sëriñ màggat jóg fu mu bàyyi daayiri bi muy yokk waaye dellu ginnaaw mukk boobu ba léegi guddeem ak bëccëg loolu lay dox mu am nag liggéey boo xam ne sëriñ sëriñ Sidi dana ko santoon mu jëm ay mbana yoo xam ne dañ ko doon waa fédération Dakar ñoo ko ñoo ko doon wut ak bool yoo ay fédération Touba mu sës leen ay di bool sëriñ bi nee na liggéey bi yemb na sant na ñëpp gërëm na ñëpp ku si defee ku si deful yëpp daal na xam ne sëriñ bi sant na gërëm na bu loolu weesoo nuy soññi mbokk taalibe yi si muy Dakar ak li ko wër sëriñ Modou moo lu joxoon ndigalu def fédération danoo waxoon ne bu ngeen booloo àndandoo ñaari ndigal du leen bet muy ndigalu kër gi ak ndigalu yoon wi ndigalu yoon wi ki fi nekkal sëriñ Touba moo koy joxe ndigalu kër gi ki fi nekkal Cheikh Abdou Khadir moo koy joxe boobu ba lékk nag si na nekk si ndigalu sii Sidi Mbacke mu Cheikh Abdou Khadir mooy sunu guddi mooy sunu bëccëg moo nu taxawu taxawaay boo xam ne amul kenn koo xam ne fi mu toll nii sëñ si day dem ba mujj gi sax ñun dañuy jàpp ne si doob sëriñ ndax lu ñuy def lu ne moom lu ñuy def lu ne lu mun a digal moom ñun koy defaloo kon sëriñ Sidi Mbacke yàlla fi yàgg te wér kër gii ñu nekk rek di kër Cheikh ji Cheikh Abdou Khadre sëriñ du Djili da daan wax ne ku ne sa baay gaynde nga soo mënta doon gaynde it war a mën a xonq bët ma dégg sëriñ Cheikh Mbacke fi ginnaaw bi fi sëñ si sëñ Modou jógee ba nu jëkkee daje danoo wax ni sëriñ Touba géej la géej daa bëri ay tefes tefes bu nekk ak na nga doxee kër Cheikh Abdou Khadir nag farata ak sunna nan fi nan loolu ba nekk nag la ne si ñoom ñun dem na ba su ñun taalibe yii amul kenn koo xam ne di nga toog rus nga jomm nga yow fa nga dëkk wala fa nga sa kër wala sa gox jomm nga nu fekk la nga nekk si lenn loo xam ne lu safaan ak lislaam la loolu nag ñoom ñoo nu nampatal si loolu dimbalan si loolu sëriñ Moodu dafa wax dama ko ma sa wax ni ko taalib yëpp dañ lay waxtaanee mu ne ma lu waral loolu ma ne ko sa jukko rek ak sa melokaan mu ne ma Ibrahima Diagne ma ne ko Mbàkke mu ne ma loolu doonu ma si dara lan maa formé teg ma si yoon woo xam ne su ma ko bëggoon wàcc sax du ma ko ko am seetlu xam ne loolu moo nekk si waa kër si Cheikh Abdou Khadir yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Muxtaar mi nga xam ne moo yor kàddu kër gi jot jottale kalimaat yi ah, sëriñ bi dafa jot ndigal ci dañ Cheikh Mbakke moom Cheikh Abdul Xaadir mu jox ko ndigal mu woote bis bii mu woo mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal ci diine ji ak ci askan wi ci askan wi li tàmbalee ci maam Maaram ba ci sët ba mujj ñëpp la woowoon ku ci bokk ci maam Barnaata Sali ak maam Balla Aysa ak mboolem suyuux yi nga xam ne bii ñoo aju ci yoon yëpp. nee na ñëpp ñëpp dañoo wuy si nañu ko wootee woon ba kawe na jot sax kon nag ginnaaw dañ ko wooteeloo woon ñëpp wuy na du mën loolu sant mbooleem ñi nga xam ne bii wuy si nañ ñëpp kenn desut di tàmbalee ci maxaram ba ci ka mujj ci sët yi di tàmbalee ci sët yi maam Balla Aïcha ba ci ci mujj ak sët yi maam ba ci ka ci mujj ak mboolem sëriñ seex yi nga xam ne ñu àndoon ak Serigne Touba ñëpp seen njaboot ñëw nañ fi teew ci bis bi kenn manqué wut bi nee na nag cant gi mu ngi ciy jiital ki war a jiitu te jiitu mooy al Cheikh Seydil Muxtaar al xalifatul am li taaifatul muridiya ndax moom day bis bi yitteel na ko lool ñor na ko lool ba tax na lépp lu ci war def na ko ci ay teraanga boole ceeg yebal njabootam gépp ñu bokk am na ko ñoom moom jax tàkk kon cant gi moom bis bi dafa xam ne moo ko moom moo tax moo taxawee ci noonu mu ci taxawee waaye kon sant gi sax xaw ko mat ndax bisam la boo xam ne bii moom mooy sant ñi nga xam ne bi ñoo ci teew ñëpp kon sëriñ bi duñ mën ko di ko ñaanal yàlla ko fi li mu naanal sëriñ Touba yàlla àggale naal yooyee muy naal di wéy di naal di wéy adu tali bi yëpp kat sëriñ na mi ngi sant ñi nga xam ne bi ñooy bokk yi ak xarit yi ak dëkkandoo yi ak ñëpp ñoo xam ne ñii rek ñëw si nañ ci bis bi ak ñoo xam ne ñi amoon nañu yeneen te ñëwuñu woon tax di sant mboole murid yëpp nag kon bi si fa am ma kenn desut di sant itam mboolem turuq suufiye yëpp kenn desut ak mboolem ñi nga xam ne bii dañoo participer ci bis bi ba mu réussir ni mu réussir te ka jiitu ci loolu di président de la république di jiitu njiitu réew mi kon taxaw na ci bis bi taxawaay ba ci mat sëkk bi ñu ko ko yëgalee li mu ci war lépp def na ko yabal na délégation bu mat sëkk ki ko jiite di sëriñ Alioune Sarr ministre de commerce mu ànd ak délégation bi mu àndal kon sëriñ bi nee na mi ngi koy sant bu baax a baax moom sëriñ Sidi te di ko gërëm ndax moom lañ joxoon ndigal mu yégle ko ñu yëgle ko ñu ànd ko ak moom ba liñ ko santoon mu réussir ni mu activité tey kon duma loolu sant nañ ñëpp gërëm leen tuturu suñ Cheikh Bakki mi ngi sant nee na CRD bi nekkoon Diourbel ñu defoon ko parce que jiitoon CRD ba di gouverneur ànd ak préfet ak sous-préfet waa police gendarmerie pompier waa hydraulique Senelec service d'hygiène Sonatel commerce ak santé ñoom ñëpp kenn ku ci nekk engagement ba ko jëloon def ko ko ba mot sëkk dara desul kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla barkeel seen liggéey ci barkeel seen Touba mi ngi sant itam nee na Serigne Abdoul Ahad Ka mi nekk maire Touba euh, ak taxawaayam ci ci màggal gi daana ko def naka jekk waaye defati na ko dam ko daa defee dara manqué wut lépp mat na sëkk ak sëriñ seex Seck bi nga xam ne moo nekk ànd ak moom ci liggéey bi moom it taxaw na ci lool ndax kenn la ci kër gi kenn la ci njaboot Sëriñ Abdou Khadre kon jiitu nga ci kër gi kon ñu ngi sant bu baax te di ko gërëm te di ko ñaanal moom itam yàlla defal ko feex ak yokkute dara ci Sëriñ Tuubaa sëriñ sii di nee na mi ngi sant itam ministre Khadim Diop sëriñ Jili Lappe ndax messi bi ba mu tàmbalee mbo bépp lettre boo xam ne bindoon nañ ko war ko jox ay kilifa ci ñoom dañ ko jox ñu jaar dañ ko jaarale ba ñëpp jot ci suñu xaatim taxaw na ci taxawaay boo xam ne bii mat na sëkk moom nag kenn la ci kër gi ëppale wuñ ko ci kër gi bis bi bisam la boo xam ne bii moo tax moo taxaw ci noonu mu ci taxawee kon sëñ bi nee na ngi sant bu baax a baax te di ko gërëm sëriñ bi nee na mi ngi sant itam euh, Cheikh Sakho ministre conseiller teew na ci màggal gi taxaw ci taxawaay bët sëkk sant itam euh, Mansour Faye moom itam taxawaayam rafet na ci bis bi ñëw na ci turu président de république di sant itam waa ONAS ñoom itam ñëw nañ ci yebal fi seeni oto ñu dikk fi am fi ñetti fan dimbali leen ci vidange yi ba lépp set wécc kon sëriñ bi ne mu ngi sant ñëpp te leen gërëm te leen ñaanal di sant itam délégation PDS te nee ne kuy jiit délégation bi mooy Omar Tall di ba ànd ak Madické Niang ak Aïda Mbodj ak Ahmed Sall ak mboolem kilifa yi ñu àndal yëpp Abdoulaye Lam waxoon ko léegi kon sëriñ bi nga leen sant te leen gërëm di sant itam délégation Idrissa Seck te ki ko jiite di sëriñ Déthié Fall mu ngi ko sant bu baax te di ko gërëm di sant itam nag njaboot gi nga xam ne dañuy kenn ci kër gi bokk ci taalibe sëriñ Abdou Khadir yi di ay doom ci kër gi di njaboot ci kër gi kenn juutuwu leen ci te ko bokk ci ñooñu la monsieur Pape Diop ak euh, sëriñ Amsatou Sall sëriñ Alioune Badara Cissé Euh, Abdul Karim Fofana ak bu euh, sëñ Lamine Si ak Massamba Sine ñi ñëpp day kenn ak Souleymane Neena Ndiaye euh, ñii ñëpp kenn ku ci nekk taxaw nga ci bés bi taxawaay boo xam ne bii taxaw ci kër gi taxawaay boo xam ne bii da ngay ne kër gi kat yow doom nga fi xarit nga fi ab taalibe nga fi kon lépp jëfe nañ ko te mu ma tëkk kon suñu maa ngi leen sant baax a baax. di sant itam mboolem turux suuf yi ni ñu koy xawoon léegi délégation kër gu nekk ñëw nañ si délégation sëñ al Amin. ñëw na fi délégation euh, kër gu nekk ñëw na fi Ahmed xalifa Niass moom ñëw na boppam Sidi Ahmed si ñëw na boppam euh, Ahmed Iyane Thiam ñëw na boppam sëñ Sidi Kunta ñu ngi fi ak mboolem délégation yoo nga xam ne bii mooy sutu lim ñun ñëpp. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad wa ala alihi sëriñ cheikh mbàkke abdou xadr njiitu réew mi président de la république Macky Sall moo ñu yebal fii ma ànd ak délégation bu yaatu te tudd leen sànq def ñu yebal ci bërëb bu tedd bii di Touba wax ñu bu ñu ñëwee fii sa wet teg ci sa loxo yu sell yi nuyoom ziyaaram ak ndokkeelam ci bés bu màgg bii bésu màgg bii ci Touba bésu màgg bii ci Sénégal waaye bésu màgg pour umma islamique yëpp ndax ki waral bés bi sëriñ bi président Macky sal mu ngi lay ñaan nga eggale nuyoom ziyaaram ak ndokkeelam ci waajuram sëriñam Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides président Macky Sall mu ngi nuyu njabootu Serigne Touba yëpp te ci jeetaay bi buñ ko tegee ci loxo sëñ Abdou Fattah mu eggale ko ci njabootu Serigne Touba yëpp président Macky Sall mu ngi nuyu say rak di nuyu Serigne Sidi Mbacke mi nga xam ne moo yor bés bi di nuyu sëñ Moustapha di nuyu it Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre porte-parole xalif général des Mourides muy feddale digganteem ak moom di ko rafetlu ndax kóllëre bu rëy rëy moo leen boole te sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke moo leen boole woon président Macky Sall mu ngi nuyu këru diine yi fi teew yëpp te mën nañ teg nuyoo boobu ci loxo sëriñ Sidi Ahmed si mu eggale ko këru diine Sénégal yëpp di nuyu taalibe yi di nuyu kóllëre yi ak ñépp ñi fi teew ci seen bés bi sëriñ bi boo ñu ko mayee ñu bamtu tuuti ci délégation bi ndax président moo ko tànnal boppam te muy délégation bu yaatu ma ànd ci ak euh, le ministre Mansour si ànd ci ak le ministre Birima Mangara ànd ci ak le ministre Diène Faye ànd ci ambassadeur Abdou Samad Mbacké ànd ci ak Cheikh Mbacké Sakho ànd ci it ak monsieur le médiateur de la République Alioune Badara Cissé ànd ci ak Fatoumata Cissé chargé de mission fekk si fii gouverneur de la région de Diourbel ak service yu mu yilif yëpp fekk fii le maire de Touba Abdou Lahad sëriñ bi président Macky Sall importance bi bés bi am moo waraloon mu jël ay tegtal teg ko ci loxo ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo wax ko ne bés bi na ci service su état bi yëpp taxaw nañ ca war a taxawee Ablaye Daouda jox ay instruction gouverneur de jurbel mu taxawal fii CRD ak service yëpp pour que lépp lu ci war état bi di def ko te dégg naa sanq ci comité d'organisation bi engagement yi gouvernement bi jëloon yëpp mot na sëriñ bi ñu ngi sant yàlla mi ñuy boole ci bés bi di li indil nuyoo ak sant président de la république ni ngeen ko boole ci bés bi muy fàttali moom président Macky Sall sa diggante ak moom démb la woon ndax Fatick la woon avant muy nekk président de la république waxoon nañu bu ñëwee fii ci mbootaay bi ñu fàttali seen diggante bu yàgg boobu muy diggante coloré diggante dox loo xam ne mooy jëmal suñu réew kanam mu ngi la ciy sant bu baax a baax Serigne Cheikh Mbacke Abdou Khadre bés bi ki waral bés bi wax nañ ko sànq ci ay jikko ci ay cër ya nekkoon màndargam muy jullite muy ku dëggu waaye surtout ku am yërmande ci doomu aadama yi muy lu ñu ràññee ñu jàpp ko sëñ Cheikh Abdou Khadre Mbacké nekkoon na ku jege askan wi daan leen dimbale bu ñuy dund te bis bu wàccee liggéey mu taxaw leen jébbal leen seen borom ku jege woon doomu askan yi la ku amoon ci ñoom yërmande am ci ñoom cofeel waaye yaakaar naa ku ñu ne imaam ci ab réew mbaa ci ab gox waaye ñu ne li imaam fii ci Touba lu ëpp ñaar fukki at ak ñaar fii ci jumaa ji tuubaa yaakaar naa kooku royuwaay la pour képp koy jullit ci àddina bi sunu waajur gu tedd googu modèle la royuwaay la pour àddina bi nga xam ne dafa xaw a jaxasoo ndax senegal am na dal waaye réew yi ñu wër ñàkk nañu dal looloo waral bés bi président de la République ñu buñ fi ñëwee taataan fi xam-xam taataan fi ay ñaan fàttali sunu waajur gu tedd googu jëfam pour jeunesse bi waaye jëfam pour umma islamique bi yëpp sunu waajur googu liggéeykat la woon ndax tool ya ma am ca bustaan ca gédde ak ca baxdaad boroom xam-xam fàttali ñu ko sànq am na loo xam ne bi ñuy ñëw fii ci Touba dañ ci doon waxtaan ak benn borom xam-xam ci Cheikh Abdou Khadir Mbacke na mu doon waajale buy dem julli melokaan ba ci kanamu sunu boroom mu nekk loo xam ne misaal bu ñu yéem la sëriñ bi président de la république daf ñu ne ñu fàttali jikko yii ndax Sénégal daf ko soxla ci jamono ji ñu toll bi ñuy sant yàlla ci li mu may sunu réew te li ci gën a bees mooy bërki démb ci fukki réew ak juróom yuy saytu conseil de sécurité fal nañu Sénégal mu bokk ci pour ñaari at àddina bi yëpp taxaw ñu jël sunu réew boole ko foofu loolu sant yàlla ak liggéey bi mag ñi def fii ci réew mi la